mbokk jullit yi démb waxoon nañ première njëriñ bi tey ñuy jël ñaareel bi ndax xadis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne man saama ramadan summa atbaahu sittan min ash-shawal boobu dafa matale kaana ka siyaami dëhri nee na xadis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko boyal tënk ko rekk ci bu ñu woree tey suba nga tàmbali toftale ko ba juróom-benn yi fat déedéet bi alayhi salaatu wasalaam ci yërëm gi mu yërëm jullit ñi ak bëgg leen bëggal yërmande subhanahu wa looloo tax mu daldi koy yaatal daal koy boyal saa yoo ko fi defee ci juróom-benn weer ci weer wi juróom-benn fan yi saa yoo ko defee ci biir weer wi rekk danay mat. ndax lan mën nga kaa séparé mën nga kaa woor woor yu tàqalikoo waaye war nga ko mën nga kaa woor woor yu tegaloo bu la neexee min awwalihi aw min axirihi bu la nga def ko ci njëlbeen gi bu la neexee nga def ko ci mujjantal ga fal amru waasiun mbir mi dafa yaatu fu waay mën a nekk rek ci juróom benn fan yi ci weer wi na fexe mu woor ci juróom benn fan waaye nag mbokk jullit dëgg la de boroom xam-xam yaatal nañ ko yenent bi alayhi salaatu wasalaam yaatal na ko waaye nag dafa am lenn lu ci nekk mooy kat wal mubadaratu bil amali saalih afdal daiman chaque jour nañuy bàyyi xel ne def lu baax kenn kuy def lu baax waroo koo yéexe de kuy def lu baax waroo koo yéexe ndax dee day bette ngant day de day bette tukki day bette soxla day bette feebar day bette looloo tax lu baax bu la dikkalee bul layam-layami bul yéexe bul yéexantu naan ba ba ba ba ñu bare bare bare bari ci ñun ba ba ba moo leen indeel jafe-jafe dinaa lii dinaa lii ba mbir ma daal di jeex takk wala ngant daal lay dab feebar bu la tëral dab la wala aajo bu la yitteel dab la wala tukki bu gaaw dab la waaye ba ca gën a doy waar nag mooy dee daat lay dab fekk nag ñàkk nga juróom benn fan ya ñàkk nga xéewal ya li yonent bi alayhi salaatu wasalaam digge woon romb na la kon nag ñu gaawantu nu gaawantu bu ñu yéex ndax kat soxla dafay wette yenn samay mbokk jullit jëf ju baax yàlla dafa ne na ngeen ko njëkkante fastabiqul xayraat la wax fastabiqul xayraat aynama takunu yaati bikumullahu njëkkante leen lu baax li lu baax lu baax dañ koy njëkkante amoon nañ benn góor génn na àdduna yàlla na ko yàlla yërëm ca jàkka ja la nekkoon doon nodd su noddee ba pare danaan kaaw leen julli bala ñu leen a jullooy gaaw leen julli balaa ñu leen a jullee waajal leen waxtu wi bala ñu leen a waajal waajal leen waxtu wi bala ñu leen a waajal su waxee ñaari baat yooyu ba pare day taxawtee micro bi naan lu baax du doy lu baax du doy lu baax du doy wallahi alazim te ñett yooyu mu wax kenn mun koo weddi nit bu waa nit day waajal waxtu julli bala ñu koy waajal ndax léegi-léegi ñu ne guddi na gaaw leen ku la gën a jege kuy sa xaalis kuy sa am jàmm du am jàmm lu ñu jël la dugal la ca morgo bi gaaw daal lay sang rek daal lay waajal rek daal lay yóbbu ci borom bi tabaaraka wa taala kon nit day waajal waxtu saa yoo déggee julli jot ñu nodd jógal nga julli comme ni ko al imaamul xasanul banna waxee ci ndénk fukki ndénkaaneem ya nee na ku dégg ñu nodd rek jógal nga waajal waxtu wi kon lu baax a ngoog euh, muy juróom benni fan yu ab jullit war woor ci weer wii nu mu ko fi woore baax na waaye boroom xam-xam yi dañoo ànd ne nga def ko ci njëlbéen gi mu gaaw nga gaaw ci génn tiyaaba yañ ci wax nga am ko loolu moo gën a wóor nga toog ndax kat aajo yaa ngi fi niñ ko waxee sànq lépp a ngi fi ci ay gàllankoor yoo xam ne mën na la gàllankoor ba doo ko def kon nag nu góorlu ñaareel bi mooy gaaw a def gaaw a def gi day moo ci gën mooy lan bil amali saalix afdal daiman nga góor góor lu njëkkante jëf ju baax ji ndax kat loolu mooy li gën yàlla tabaraka wa taala nee na njëkkante leen lu baax njëkkante leen yu baax yi boroom xam-xam ba ne alxayru laa yanfau illaa li failihi wa charru laa yadurru illaa li failihi lu baax day du jëriñ lu dul ku ko def waaye lu bonit du lor lu dul ko def yàlla dafa bëgg nekk ci jëf ju baax yàlla dafa bëgg chaque jour ñu ciy sax yàlla dafa bëgg ñu ciy continuer ba dee ci waabudu rabbaka hatta yaatiyakal yaqiin taxawal ci jaamu yàlla ba dee fekk la ci ñu ngeen di ñaanal yàlla tabaraka wa taala tawfiq fi dunia wal axira ngi ñaan yàlla mu sàmm leen sàmm njaboot gi ngi ñaan yàlla mu aar leen ngi ñaan yàlla mu taxawu leen zahir ak baatin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu